wa Sénégal, salam alaikum wa aduna. Euh, salam alaikum à travers les 14 régions du Sénégal, nous avons fini de euh, Nyawat, euh, qui escarguit bam, Tsafina FM à la même heure. Et chaque samedi de 17h à 18h, mais avant tout d'abord, nous avons fait une fête Kirgi, à savoir, Brom Kirgi, avec la directrice, avec personnel, bien que nous avons fini, avec aussi technicien, bien que nous avons fait une fête Bobokat, bien que nous avons fait. Les ce que nous fait aussi, nous avons fait une fête hôpitaux, et vraiment, il y a la fougue, c'est une bonne amate, c'est une nous profitons aussi de occasion de aussi ñi nga dans les lieux carcérales yàlla may une liberté ba nous mën a delluwaat aussi ci seen vraiment digne ñaanal kilifa aada yi kilifa dini yëpp di am mbégte kontaan pante ñëwaat fini comme euh, niñ ko faral chaque samedi avec des invités de marque yi nga xamante vraiment moom lañ dans yéene dalal à savoir Samba John nous donne euh, vraiment bien responsable JPSC c'est-à-dire euh, la jeunesse patriotique di parti Pastef et kooku noonu moom mooy depuis Ndondola mon lañ dalal tey ak ki nga Bator Faye mu qui APR e, e, de dar Moussi di AFAD donc Alliance des forces e, de ADD kon donc su ko ñooñu lan tey ci thème am solo le président de la république une déclaration de patrimoine à question donc su loolu fa partager ak euh, ak euh, auditeurs et auditrices ak ñi nga aussi vraiment ñu kon rek dañuy jox à savoir d' euh, monsieur Samba John, monsieur Samba merci beaucoup Ibrahima ci invitation bu am nous avons également sama mbokk miñ fi invité muy responsable politique daru Musti euh, man Samba Samba mhm. secrétaire général du département de Bambey de commune bu Ndondol vraiment di profité ci occasion bi ñu nuyu à Ndondol yëpp ak particulièrement la jeunesse patriotique merci merci beaucoup merci beaucoup Koko moom Samba Dione secrétaire général de JPS de Bambey euh, et Moudeke fi nga Fofu ne foofu moom mooy ndondol kon su ko defee dañuy jox kàddu ki nga xamante ne moom euh, coordinateur Basirou. kon Basirou ñu lay nuyu. waaw maa ngi lay fay euh, Ibrahima di la sante bu baax baax ci invitation bi di nuyu ki nga xamni ne la jakar jàkkaar muy Samba di sama mbokk dëkk ba ndondol ma nuyu waa ndondol di nuyu. ñoom Saasum Diouf ak Baye Saliou Diouf ak ñoom ñëpp di nuyu aussi mboolem euh, sénégalais yi ñu diglu ci biir réew mi ci bitim réew di nuyu le technicien Samba di nuyu aussi particulièrement sama waa commune waa Darou Moussi di euh, revenir un ci votre euh, présentation da nga wax ni bassiru fay coordinateur APR Darou Moussi alors que du loolu Bassirou Faye responsable politique APR Darou Moussi Darou Moussi donc euh, jité aussi AFAD moy coordinateur coordonnateur AFAD ah. coordinateur AFAD alliance des forces d'Abdoulaye daw ok ok merci beaucoup. merci beaucoup Bassirou Basirou, kon noonu ko la Bassirou Faye responsable politique APR Darou Moussi coordinateur AFAD alliance des forces de ADD et profession spécialiste en passation des marchés publics n'est-ce pas Comme kooku moom mooy depuis euh, euh, Darou Moussi je suis venu à ñu ñëwaat fii vraiment Il faut partager avec askan bi li nga xamante ni sujet bi ñu vraiment pour euh, j'aime que partager avec peu de connaissances bi nga xamante peut-être moom lañ moom lañ ci am mais laataa de dañuy rappeler li nga xamante ni mon serveur vocal et 77 396 56 27 77 396 56 27 et di nuyu wu dem ba mu marché HLM di nuyu ñu ma fa euh, ñu ma fa bàyyi ñoom Moussa Moussa Diallo ñu ngi koy nuyu baax ñoom tonton Ndiaye ñoom euh, Fatou Fatou Maron sama rak jooju ñoom Seck Bamba Diop ñu ngi leen di nuyu baax a baax a aussi di ñu waa Iba Der ñoom Amet ñoom Aliou Guèye ñoom Magou Guèye marché HLM gars vraiment ñu ngi leen ñu ngi leen dem ba Bambey aussi vraiment di wat aussi wa Bakakag wa wa Bari Ndondol aussi ak wa euh, wa Kurti Khadim sen ak aussi vraiment wa Mboxodan kay vraiment ñu ngi leen di nuyu baxa bax à savoir la commune de Ngoy ce que de faire rek dañu ñew ci li nga xamante mom sujet bi donc euh, euh, cher invité ñu euh le 24 mars et ñu commencé woon am njiit bu bees bu nga xamanteni ñu ngi koy ñu ngi koy wooye Bassirou Faye léegi boobu nous ñu et bo à la veille et même vraiment ci li nga xamante mom moy kin élection yi mu def une belle déclaration bo am solo ñu toogaat bo fan yi ne passé mu defaat benn déclaration patrimoine ba nga xamante mon ko ngi ko conseil constitutionnel léegi yow en tant que en tant que en tant que coordinateur de la des GPS Samba Dione ma la laa laaj ban ban analyse nga def ci li nga xamante mom moom déclaration bo voilà, merci beaucoup Ibrahima. Je pense que d'abord dañuy wax alhamdulillahi alamin borom ko vraiment Sénégal tollu ci ay yu difficile ne liñ doon changer président alternance borom vraiment Basirou Diomaye gagné élection yi au premier tour avec la manière damay wax ne rek di fàttali moom avant ñu koy fal ci njeexantelu campagne mu ngi doon wax waxu déclaration de patrimoine heureusement dafa méngale la mu doon wax ak la mu gëm ci bi nga xamee ne falu na parce que boo faloo ndayu charte bi di constitution daf la may ci article 37 boo faloo da nga war a def déclaration de patrimoine nga jébal leen ko ñom ñu jox ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel rendre ko public basirou nak da nit ko xamantene dafa respecter euh, ndeyu charte réew mi ak également li nga xam ne moom ak sénégalais yi motax bimu falo deful dara dul def déclaration de patrimoine jaarale ko fi nga xamantene mom la law jaar li ñuy rafetlu également ci déclaration de patrimoine bi moy président c'est un fonctionnaire haut fonctionnaire de l'État qui a fait plus de 15 ans de service impôts domaine. domaine. Il est un fonctionnaire milliardaire mu est un inspecteur des impôts au domaine. donc je pense que day nekk xel mu dal et également si on fait une comparaison ak euh, première déclaration de patrimoine bi nga xamné ak également bi mu mujjee def nga xam ne cabinet certifié moo ko def boo defee comparaison daanaka c'est la même chose te rafetlu nañu loolu parce que réew mii di réewu Sénégal dafa nekk réew boo xamante ne kat toll nañu foo xam ne wax dëgg fa neex yàlla arrogance politique bi nga xam ne ñenn ñi nekk ci kujje gi dañ ko daan doxe dafa jaaxaloon ak sonaloon nit ñi ak naqaroon nit ñi ba vraiment suñu borom dimbali ñu ba 24 mars je un président de la république qui a un très haut fonctionnaire et domaine également nekk nit bëgg Sénégal ak bëgg vraiment amul rapport bu ko mësa épinglé amul entreprise bu wax ne contrôlé ma sama 5 francs te yaakaar naa moom le président Ousmane Sonko pouvoir bu fekkoon na am na lu toll ni tarafal ay ni lu ñu leen mën a toppee je pense que très sincèrement am na ci yu bëri yoo xam ne dina feeñ kon ñun ñi nga xam ne dañu nekk waa Pastef rawatina waa Sénégal dafa nekk loo xam ne vraiment dañ koy rafetlu di ci am mbégte di sant yàlla di leen ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo leen jox pouvoir bi mu may leen ndam lépp loo xam ne doonoon na lu naqari sénégalais yi suñu borom vraiment permettre leen ñu réaliser concrètement projet bi ngir njëriñul Sénégal ak changement Sénégal. ok ok kooku moom mooy Samba Dione eh, réponse bu am solo boobu nga xamante ne moom la apporté par rapport à la question posée kon dama ñëw ci ki nga xamante moom mooy Basirou Basirou eh, donc dama ñëw ci même kii ni question bi à partir du 24 mars passé eh, dino tab Sénégal dafa tab njiit bu bees bi nga xamante ne moom mooy le président de la République Basiru Diomaye Faye mu defoon benn déclaration à la vie des élections le 22 mars ñëwaat aussi barki démb aussi le 25 juillet après mon itam de defaat déclaration les déclarations bi dont doonoon déclaration bi nga xamante ne dafa bëri ay yow en tant que ki ne apériste lan nga euh, kii ban qui euh, nga am ci li nga xamante déclaration. Wow euh, Ibrahim sous sou ma diglo dal day ni man d'accord xol la gën am que mbégte parce que le ma mooy euh, Ousmane Sonko bi nga xam ni moom mooy premier ministre du Sénégal bi muy taxawal gouvernement bi dafa ñu waxoon ni ñu c'est un gouvernement en urgence mu ne Sénégal dafa nekk ci urgence tey maanaam mënul xaar dara dara dara dara dara dara dañoo war a xëy rek song liggéey bi parce que dafa fekk ay urgence yoo xam ne mënul xaar. kin comme quoi. non moom moom moo wax loolu. moom premier ministre keroog bi mu taxawee palais di taxawal gouvernement am. Mhm. waxuñu ko euh, waxuñu gouvernement d'action waxuñu dara danañu un gouvernement d'urgence. d'urgence maanaam Sénégal fi tolni, toll nii xaar mi ngi ci urgence boo xam ne. fépp foo laal rek jafe-jafe la. mais urgence yi urgence yi. waaw maa ngi ñëw. Légui, gis gis nga lu mel noonu boo ko waxee maanaam boobaak légui, gisaguma nga def dara loo xam ni priorité la man daf may jaaxal. parce que boobu ba tey li fi ñoom li ñu fi def mooy seet seetal. Euh, euh, journée de reboisement. Ah, euh, déclaration de patrimoine est-ce que loolu mooy priorité sénégalais yi fi ah mais c'est c'est baax na quand même voilà. waaw dama ne est-ce que loolu mooy priorité non xam nga set setal bi ñoom du initier fi leen ko fekk son excellence le président Macky Sall moom moo amoon initiative moomu un honnêteté bëggoon na honnêteté intellectuelle waroon na ko pousser ba premier jour bi mu koy lancé. mu jaay defal son excellence le président Macky Sall ci loolu parce que moom moo ko man maanaam xalaatam la jël. mais journée de reboisement. Mhm. fi la ko fekk bi mu waaj def tey ak dem euh, suba. déclaration bi nag li nga xam ni moo ci doon gàcce mooy kon day wane ni li mu doon def ci campagne bi loolu tuur lëndam askan gi la woon ba mu ko defee laan la woon kii day def li ñuy wax populisme te boo xoolee ñoom sàmb ci loolu la ñuy yëngu ñoom seen lépp. populisme la. kon yow la première déclaration ak le deuxième du qui pour l'instant dafa am mais bi constitution ngi defal et def mais li nga xamni je ko déclaration bi nga eh, la constitution reconnaître. reconnaître. Mhm. war au niveau du conseil constitutionnel. wax na ni alalam tourner autour de 400 et quelques millions je suis un opposant lucide donc c'est la première fois le Sénégal a un président de la République qui n'est milliardaire c'est un président pauvre. c'est un président pauvre. parce que 400 millions. ce banque 300 à 400 millions. mais mon wahana na ne aussi le lépp lu am aussi ci banque la ko c'est-à-dire waaw maa ngi bi ak. Eh, maa ngi ñëw c'est très normal. ci koo xam nek nga inspecteur des impôts de domaine domaines lu tolloo 15 ans man am amam googu noonu loolu ñu ko xaymal damay tatchu xam ni euh, lu am solo la ci réew mi. et c'est une première aussi parce que président yi ñu fi daan am wax deug yalla seen alal daan ëpp loolu bien que aussi jar jar yi bokul waaye dama gis ni. ci biir déclaration de patrimoine bi Bassirou jomaay waxuñu dix millions yi mu ne woon daf ko àbb bi muy e, e, e, yëngu ci wàllu tool yi ci suuf soo soosu nga xam ne ci la ko ministre bi mayoon muy Serigne Gueye Diop fële ca Sandiara dix millions yooyu noonu gisuma ko ci déclaration de patrimoine bi waroon na cee dugg bi ci des mooy man bi ñu àttee ba jaxate ma koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko tawféex demoon na maa ngi woon ci biir salle bi dama gis procureur de la république demande ba jaxate ne ko da nga wax ni basir Diomaye fay inspecteur des impôts et des domaines dafa jaay suuf inspecteur bi tudd Cheikh Diba ba jaxate ne ko waaw mu ne ko ana kay di ba jaxate génn acte de vente bi jox loolu aussi bëggoon naa kon basir Diomaye fay boole ko ci déclaration de patrimoine am ñu xam loolu nu mu demee woon bu loolu lépp jàllee li nga xam ni sénégalais war nañ ko ci jàngat mooy basir Diomaye fay n'est pas un bon employeur c'est-à-dire koo xam ni sa sa alal dem nan ba xayma ko ci 400 millions te te employé woo kenn taxaw naan dana saafara jafe-jafe askan wi dana saafara jafe-jafe wu employabilité ci biir réew mi man ngaa jàpp ni dalay nax parce que lu mu gàtt-gàtt kii waroon na euh, employé lu mu dee dee cinquante à cent personnes mais sur les quatre cent millions qu'il a il n'a aucun emploi loolu ah. mën naa fa jaare ma ne kon Bassirou Diomaye Faye mii su fekkee ne ci moom la ñu xaar mu saafara jafe-jafewu employabilité ci biir réew mi dana yéex loolu. ah mais kii tool boobu nga xamante ni moom koy wax foofu noonu te sa njara nga xamante ni moom dafa mel ni genre. genre ñaari nit ñoo fa nekk ñaari nit. genre te 4 hectares la. ah bon 4 hectares ñaari nit. ah gën a doy waar. gën a doy waar. mais ñaari nit yooyu dañ leen fay te li euh, te li gën a doy waar. Mhm. xam nga waa Pastef. bu ñu waxale yàlla rek. képp ku fi mus a tekki ci biir réew mi taxaw na ni la ci système bi nga bokk sàcc nga nangam nangam fii nga jëlee sa alal bëgg laa salteel bëgg laa décrédibiliser tey Bassirou Diomaye Faye mi ngi 400 millions. mais Bassirou waaw dama ñu la Bassirou Diomaye boo xam ne musul nekk chef de service. musul nekk chef de section. su ma nee am 400 millions. kon nag wax dëgg yàlla bu keneen amee un milliard Amadou Ba am 2 milliards wala keneen ak keneen warul leen jaaxal waaye lii war na ni waa Pastef euh, nekkuñu ay gens de bonne foi. ñoom daal toujours lépp lu euh, lépp lu euh, lu baax ci ñoom rek baax na waaye lépp lu bon ci ñoom baax na te te lépp lu ñu bonal tey mën nañ xëy baaxal ko démb ñoom ñoo bonaloon euh, xaalis bu toll noonu tey ñoom ñoo ko baaxal. bon léegi. kii waaye tey it. Mhm. merci Ibrahima waaw mais kay non non dafa des. dafa non Samba xam nga loi bi xam nga loi. loi. kenn waru ko transgressé da nga koy topp ba mu jeex tàkk Bassirou Diomaye ñu ngi koy tàccu dem na ko def mhm. ak donte def def nañ ci ay commentaire mhm. waaye dafa des premier ministre def comme Ousmane ko mhm. na dem of nag def déclaration kooku Sénégalais yëpp a yàkkamte xam am amam. ah mais moom ah mais moom mu ngi ci waajal mu ngi ci waajal mu ngi ci waajal bi def ko of nag. mu ngi ci waajal bi nag mu ngi ko publié ko. Ibrahima mu ngi ci waajal bi xaaral xaaral xaaral xaaral ci Samba dafa am ci nii benn tranche bu mu bu mu dugg ma bëgg ko laaj ban njàngat la ci am comme soo comparé l' estimation des quatre cent millions wala milliards yi nga xamante ne moom moom nga tudd léegi. ak ak ak aussi li nga xamante ne moom yor na ko ci ay dettes li nga xamante ne aussi eh, ki toll na ci kii ni trente millions. et mm-hmm. et poussière. Mhm. ban ban ban ban jàngat nga am ci loolu. non dama ni. Mhm. booy wax ay wax day leer. comme. ci biir déclaration de patrimoine bi dama cee gisul dix millions yim ne woon dañ ko ko aaloon. mu non am am am bi nga xamante ne moom ngay moom nga wax ne eh, peut-être moom lañ estimé ak li nga xamante ne moom moo ko topp ci bor. Ah. soo defee la soustraction est-ce am na dara. am na dara ah. non non jàpp naa ne quatre cent millions yi c'est c'est normal maanaam lii daal. Mhm. Euh, du lu war a yées du lu war a ëpp. jàpp naa ne lii normal na inspecteur bu mel ni ba Bassirou Diomaye fay ma xamoon ko nag démb avant tey mhm. ñu daan jëflante normal la mu am lii lii moom jaadu na waaye dama ni mhm. dama cee gisul kër ginne jaay na ko Cheikh Diba.

parce que dama jàpp ne ñii ca la ñu nekkoon démb ak barke dem ca lañu nekk ba tey parce que gémmiñ buy nàcc du wax jàmm mhm. te li fi nekkoon ci nguuru Macky Sall ñëpp xam nañ ko lu dul toroxal askan wi salfaañi seen ak ak yeleef sàcc alalu askan wi loolu kese lañ fi nekke woon boo amee seetlu bu ndaw état bi dafa nekkoon benn jumtukaay boo xam ne day day day maanaam dañ koy utiliser pour sàcc alalu askan wi ah, beneen bi ñu jël ko def ko jumtukaay boo xam koy utiliser contre les opposants et les adversaires politiques ci naka ci naka ci ci dal ci kaw ay opposants yu lan la ci ay je vais réduire l'opposition a sa plus belle expression. te loolu suñu borom won ko ne. <laughs> yoroo pouvoir man mi la ko joxoon bo démé ba la ba la taxoon ñu jox la ko nekkatoo si mën na ko jël. mais est-ce que lu itam est-ce que loolu itam aussi ki def ko boo amee seetlu. Mhm. askanu Sénégal suñu borom def ñu atté ak Macky Sall. comme au 24 mars askanu Sénégal dañu bolo ñëpp voter massivement ñu gagner avec 54,58% au premier tour loo xam ne daanaka mosul am ci histoire politique au Sénégal benn donc président bi nga xam ne Sénégal c'est un président qui a am une légitimité absolue si je peux si je peux m'exprimer comme ainsi par rapport également ak bilan bi nga xam anticipé na ci di je pense que euh, par rapport ak euh, suñu nouvelle autorité yi ba ñu ñëwee falu ci réew mi bu ni daanaka ca la ñu waxoon ca njëlbeen ca la ñu nekk. comme boo boo boo ba ñu la joxee kër boo njëkk boo ñëwee la ngay njëkk a def mooy diagnostic situationnel moo tax ci fan yii ñu dem ak moment bi ñu nekk réew mi yëngu na bu baax am na responsable yu bari yoo xam ne bu ñu tëddee nelawatuñu wala ñu ngi wër di taxawaalu fu nekk. lan seen làmmiñ li tax mooy. Mhm. boo xoolee. bañu falo ba bés ni ki IGE ak corps de contrôle yi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib danaka dans toutes les institutions et structures étatiques chambar bi ñuy wax ne diagnostic situationnel ñom def nañ ko donc moment bi ñu nek je sais que ñu upp ci ñom déjà ci département bi ma dëkk amna ño xamné amna ño xamné na non seulement lancé nañ leen mandat d'arrêt international ñii daanaka semaine bi passé wala deux semaines yi passé yëpp daanaka ay arrestation même si John même ay arrestation yu dul jeex lañ fa lañ lañ lañ fa constaté man nag dafa am benn affaire bu am solo loo xam ne dama ko bëggoon wax par rapport ak bilan 100 jours yi nga xam ne pratiquement moom la doon wax moom la doon wax moom la doon wax par rapport ak ba ñu falee ba léegi li nga xam ne moom la ñu diggoon askan wi ak li ñu def ma bëggoon ñëw ci mesure phare yi nga xam ne gouvernement bi posé nako D'abord. Mhm. est-ce que acté un aussi. effectivement parce que lan acté nako lutax parce que tay limal limal ñu bi justice. Mhm. dafa nekk que euh, institution bu soxé won trop biñu falo li ñu jëk def dialogue def assise pour la réforme de la justice je pense que mais mais mais vous mais aussi justice bi pas ba ndax tay ki nañ ko nga peut-être que dal ci njitu réew mi ba gis nga ni nga la je pense que ci que wax les conclusions yi nga xamné mhm. acte yi lay wax dialogue bi acte yi ñu fa posé conclusion yi bu soobee yàlla basiru que. jël na des engagements fermes joxe na ko ko war a pour ñu saytu ko xool li nga xam ne nan la ñuy def ba mettre ko en œuvre. ok waaye tamit réew mi. léegi dinañ ñëw ci point boobu mais mais kii nañ nañ wax ak yéen ci kii bi déclaration bi. nañ ñëw ci point boobu mais nañ wax ak ci ci ci xaral xaral Samba Samba Samba Samba nañ ñëwagum ci li nga xamante ne moom mooy ci déclaration bi après dinañ laal point boobu noonu nga xamante ne moom nga laal noonu. ndax bokk na ci euh, aussi li nga xamante ne moom lañ war a war a war a kii waxtaane. comme comme ni ma boo déggee may aborder tous ces points. moy mhm. ci ay kàddum def aborder lo xamné par rapport ñun bañu falo ba léegi li nga xamné mom moom lañ fi def. mais bu féké par rapport ak déclaration Basirou Basirou Diomaye fay mhm. je pense que man awuma aucune appréciation. Mhm. négative bo xamné wala benen regard bo xamné dama ko ci def par rapport à ces propos nak amna na propos yo xamné bokoy tenir bo togué sax ak sa xel nga xalat nga xamné li ngay wax teguwul fenn bo setlo président Bassirou Diomaye candidat yi bok na ci candidat yi nga xamné ci mujjanteelu campagne bi danaka ci li ëpp ci ay discours de don inciter incité pour candidat yëpp ñu def seeni déclaration de patrimoine ba mu faloo dafa wax la wax moy defoon na sama déclaration de patrimoine mhm. dañuy jël une structure bo xamné c'est indépendant c'est des experts ñu dem def évaluer à alalam donc mom mi tay bu toogee fi di def di avouer comme aveu Bassirou Diomaye li nga xam ne am na ko lu jaadu la lu yenn maanaa la donc je pense que loolu ndam la wouté na ak li nga xam mom lañ fi daan gis parce que président bi nga xam mom mo fi jóge ba mu ñëwé di def ay waxu déclaration de patrimoine lamu estimé woon ne mom la am huit milliards je pense que ci pays bu pauvre comme bu melni Sénégal wala nos pays yi nekk Afrique njitu réew bu responsable njiitu réew bi xam. Ah askanam mais dama nekkoon en fonction en fonction en fonction la nekkoon war war war dafa nekkoon fonctionnaire. non bàyyi dinaa ko tontu ak lu mu mën a def. ak lu mu ak ak lu mën a am. ak lu mën a am euh, Ibrahima. Mhm. je pense que alalu président de la république day raisonnable. et et lii am nii c' est une première et également euh, jafe na ci pouvoir boo xam ne dafi nekkoon daanaka di phagocyté opposant yi. boo amee seetlu moom ak président Ousmane Sonko ba ñuy wax ne du entreprise amul contre contrôle amul lenn loo xam ne mën na leen reprocher dara ci seen gestion moo tax ba ñu ñëwee ñu wax jub jubal jubanti ñoom nag li leen metti ak li leen naqari mooy xamuñu loolu parce que ci li ñu nekk mooy sàcc wax lu dul dëgg jaxase ak également jël alalu askan wi di ko foowee di ci def naka su dul noonu loolu nag dafa jeex ci réew mi muy dox moo jeex ci réew mi moo tax boo leen jël votre mal à patience votre mal à patience te xam ne réew la li ñëpp bokk ñëpp dinañ ci jot bu soobee yàlla suñu borom acte président de la république moo koy et son chef et son premier ministre Ousmane Sonko rassuré nañu dal na xelu sénégalais yi motax Senegal dal bi fi nek ak jamm ji fi nek liñ ñu leen di ñaanal dal moy suñu borom may leen jamm

c'est depuis Sacré-Cœur 3 vraiment sama sama sama sama euh, depuis Wakam Paul Diop Ngor a vraiment di nuyu Abdou vraiment vraiment Wilbert Ndour Ibou Ndiaye ñom Abou gars yépp vraiment mm, eh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax baax di leen bàyyi xel bu baax di fàttali leen rek aussi képp nga xamante ne bu nga seetaanaat aussi émission bi mën nga dem sur les ondes de YouTube foofu noonu émission bi mu ngi may directement donc ni rappelé serveur vocal bi 77 396 56 27 77 396 56 27 Moussa depuis depuis HLM ñu ngi leen nuyu bu baax a baax sama sama sama sama pël bu lakkale boobu noonu ñu ngi koy nuyu bu baax vraiment kon que ko defé dañuy ñëwaat li nga sujet donc euh, monsieur Samba John, ñu Allô? Allô? Allô? oui kon kon ki ni su ko et auditeur la waaw ki da nga essayer waat rek da insister

waaw ah, kon ñu tamit. jërëjëf kontaan nañ kontaan ñu baax a baax a baax. merci beaucoup merci beaucoup frère. ñu lay suuf suuf ba ngoon. amee ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf waa waaw yoo demee rek après dañu bàyyi lépp lu ñu doon jàpp après di la concentré. ndeysaan ndeysaan ndeysaan xoolal ma lii rek yàlla rek a leen di fay. ndeysaan kontaan nañ kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax frère kontaan nañ bu baax a baax. amin amin amin amin amin amin amin ñu bëgg ñëpp ñu bëgg ñi ñëpp waaye ñu bëgg ñi ñëpp merci beaucoup merci beaucoup Moussa merci beaucoup merci beaucoup jógee ñu taxaw jógee ñu taxaw gis naa loolu gis naa loolu Moussa ah, non ah, yéen la rek yéen la rek yéen la yéen la yéen la xam nga ba ni lamp ndeysaan ndeysaan ndeysaan loola war laay ndeysaan loola war loola war loola war loola war loola war yàlla rek leen di fay jërëjëf jërëjëf jërëjëf nañ ko dégg bu baax a baax baax ba mos ok merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup ak amu ci ak amu ci lay kontaane sax kontaane bu waaw waaw. merci beaucoup merci beaucoup Moussa. jërëjëf kooku moom mooy Moussa depuis HLM ah. allo. allo allo oui. bi naa def. maa ngi fii. allo. oui allo oui. noo tudd ak fay wootee. bi ne. sëñ maa ngi nii Taïba laay wootee. ah Taïba. Scat Urbam Scat Urbam. Scat Urbam bisimilah bi. noo tudd tur bi. waaw na ngeen def. jar na ah Ousmane Diallo laa Ousmane Diallo ah Ousmane Diallo waaw Star Urbam waaw Ousmane bisimilah waaw uh-huh. waaw waxtaan bi de maa ngi koy maa ngi koy déglu boobu léegi mais waxtaan ji xam nga li lii mbir tey mbir uh-huh. xam nga ñu ngi naan Diomaye mooy Ousmane Ousmane moom mooy Diomaye uh-huh. mais dama bëgg ñu xam ne ba yow man xëy na jote wala taziru waziratun wizra ukhra amul kenn kuy gaddu bakkaaru keneen ka xam nga réew mi boo seetee yàlla buy dénk moom. Mm-hmm. du dé yàlla buy dénk mbir. Mm-hmm. day yëkkati mbir mu ne Ousmane Sonko am wala mu yëkkati Diomaye mu ne Diomaye am. Uh-huh. mais lu toll ni quinze millions d'habitants wala dix huit millions d'habitants xam nga yàlla moom dafa yëkkati nguur gi yëg teg ko ci loxo Diomaye. waaw. Diomaye xam ko mu ñàkk koo xam Ousmane Sonko xam ko mu ñàkk koo xam sénégalais xam ko ñu ñàkk koo xam loolu la yàlla dogal. Mm-hmm. te bu yow mal xëy ma jotee yàlla dina tongloo joomaay ci biir Sénégal yi yëpp. Mhm. yàlla dina ko laaj nan la yoree woon Sénégal moom ci wàllu boppam moom bu fekkee ne moom moom ay premier ministre am wala ay ministre am ñoom ñëpp dinañ toog ku nekk dinañ toog ci penc yàlla bi ñun ñëpp ñu toogandoo. Mhm. lii jub daal lii mbir tey mbir daal sénégalais yëpp la ñu gis seen bopp ci seen nguur gi mais comme ni maanaam joxe bopp yotu rek tam loolu dafa nekk boo seetee ak réew mi ni mu mel assurance benn soos man affaire dund bi sax moom ma gën a yitteel. ok boo seetee béykat yaa ngi nii sonn béykat yi waa àll ba ñu ngi noonu sonn boo ay ñaar dërëm ñetti dërëm boo seetee boo ko wàññee si ceeb bi lan nga leen wàññil wàññiloo leen dara. ok dund bi moom métti na métti woo xamante ñaar dërëm ñetti dërëm même ci nguuru Macky Sall man jàpp lañ ma si ñu tëj ma ci kaso maa ngi si doon wax wax naa ci. ci affaire dund bi. mais ay ñaar fukk ñeent fukki dërëm loolu moom moo dul wàññi doomu aadama boo leen bëggee dimbale da nga leen di dimbale parce ñoom seen wàllu bopp xaalis bi ñuy séddoo ñàkku nit ñi la dajale. Mhm. léegi nag nit ñi dajale seen ñàkk ba pare gisuñu seen bopp ci loolu boo xoolee surtout waa àll ba waa àll ba ñoo gën a sonn dañ leen jàppale ngir jëmee rek ñuy wàññi dund bi ñu oyofalal doomu aadama yi kër yi ñuy tabax ci ay Ndakaar ay location daara yi daara yaa ngi nii école français yaa ngi nii dañ leen di cotiser lu nekk lañ leen di cotiser am nañ lu ne daara yaa ngi nii amuñu benn jàppale amul benn ku leen jàppale loolu loolu musiba la si réew mhm. Sénégal boo gis Sénégal daal ñi ñi ñi gën a tënk réew mi ñi gën a tënk réew mi ñoom politiciens yi ñoom ñi ñoo ñoom ñoom ñoom ñoo otaas réew mi ñoom ñoo jàpp réew mi di otaas képp képp kuy wax mhm. doo xool yàlla doo xool yonente bi lu la neex rek ngay wax mhm. te loolu ñaaw ñaaw na loolu ñaaw na te bu yow bal a jotee yàlla dina woo joomaay mu laaj ko réew mi nan la ko yoree woon du laaj Ousmane Sonko de Ousmane Sonko moom ci wàllu boppam mhm. isaabu boppam la yore mbiru boppam la yore mhm. jooma yore mbiru boppam mhm. kenn ku nekk si ñun yow a xëyaama jotee yàlla mu ne wala taziru waaziratu wizra uxra keroog bu yow a xëyaama jotee Ousmane Sonko dina gaddu téeréem yow gaddu téeréem ma gaddu sama téere nga gaddu sa téere ku nekk keroog yow mal doomu adama nañu waxante dëgg te yàlla rek a tax dund bi métti na métti woo xamante ñu ngi yi di lekk seen mhm. congélateur yi seen frigidaire yi li fa nekk ñun ñoo baadoole ñun ñu moo moom moo fa nekk nañ ko génnee bokk ko doomu aadama yi mais ñu téye ko foofu noonu jàppale ñu doomu aadama ay ñaar dërëm ñetti dërëm boo dee da nga ko wax da nga wàññi ceeb beeg diwlin bi wàññi woo mhm. ñu bu njëkk da doon dund bi dund bi dund bi dund bi dund baa ngi nii ba léegi nit ñaa ngi ni gisuñu seen bopp ci dund léegi boo boo seetee xaalis bi ngay dégg milliards yi ngay dégg Sénégal fii nii 4 millions yi ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci jàmm kon 16 millions yëpp nekk ci musiba boo seetee loolu loolu réew mi doxul. fii mhm. mhm. ku ku ñu jox fii nga noppi ku ñu jox fii nga noppi léegi nag bu ñu la joxee nga noppi loolu loolu loolu réew kañ lay dem kañ lay dem depuis kañ depuis Senghor ba léegi boo seetee sotti ceeg def ci la du Ablaye Wade du Senghor du Senghor du Abdou Diouf du Macky Sall ñoom ñii ñoom itam ñu ngi nii di commencé dox jomaay nag jikko ji mu yore nii neex na neex na doomu aadama yi parce que waa ji jikko waa daara wone yarute googu nekk ci moom nag moom moo tax doomu aadama yi sax man mii nii sax mu aw aw ma lenn lu ma koy wax. maa koy naw. diine ji nga xamante ne mu koy yëkkati ak ragal yàlla googu noonu muy wane. mais ragal yàlla googu noonu muy wane nag. na ji responsabilité boppam mu xam ne réew mi moom la ko yàlla jox. conseil yi muy jël ñëpp conseil conseil bala ngay conseil da ubbi téere yàlla bi nga conseil wu foofu téere yàlla bi boobu mooy la nga xamante moom mooy muccal doomu aadama yi mhm. léegi nag ñu ngi nekk fii ci Sénégal ñu ne asa tuminuna bi baadil kitaabi bi lu ñu nekk téere yàlla bi ñu attewoo ko lu ñu arrangé wu ñu teg ko la ñu ne tubaab bi nee na luwaa nangam luwaa nangam luwaa nangam mhm. boo seetee ñu nekk tubaab bi ba yomal xiyaama jot duñu mës a fi mus a nekk ay tubaab ay nit ñu ñuul lañ mhm. tubaab yi seen téere la ñuy attewoo ñun tam la ñuy attewoo téere yàlla bi nga xam ne moom la yàlla tegal mhm, mhm. loolu moom mooy dëgg gi naxante gi dafa ëpp te nit ñi fu mu toll nii doomu aadama yi doy na waar doy na waar doy na waar maa ngi jégalu nag ak amul solo amul solo amul a moom émission bi amul solo yéen moom émission bi kooku moom mooy Moussa merci beaucoup merci beaucoup Moussa kooku moom mooy Moussa Diallo depuis euh, Escape Urbam ñu ngi koy a baax vraiment di am mbégte contentement moom ak Moussa Diallo depuis HLM aussi suñu ñaari auditeurs yi nga xamante ne ñoo fi jot a wooteegum leen di nuyu baax di profiter aussi di wuyu waa di nuyuwaat aussi waa Escape Urbam yëpp euh, vraiment en appuyant sur euh, Moussa Diallo Moussa ñu ngi lay jaajëfal Moussa HLM aussi ñoom tonton Ndiaye ñoom Fatou Madame Maroon ñoom Seck Ndanaan ñoom Bamba Diop gars yëpp rangé boobu ñoom Bayzal ñoom Mohamed ñoom Anta Anta Diop madame Anta Sey madame Diop ñoom euh, Penda Sow gars yëpp ñu leen di nuy baax a baax kon su ko defee rek gars yi dañuy ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy moom ni sujet bi léegi euh, d'après li nga xamante ne peut-être moom la ñu moom la ñu moom la ñu dégg ñëpp hmm. léegi ñu dégg ci biir déclaration bi. le président de la république Bassirou Diomaye Faye ñu gis né ci biir dafa am li nga xamante mom lañ ñom mom moom lañ tuddee valeur vénale valeur vénale bobu nonu indi ay polémique yu bari yi nga xamante ndax ki euh, valeur vénale soo koy soo koy soo traduire moy benn valeur bi nga xamante ne c'est euh, kii c'est probable lolu nonu do li nga xamante mom moom ko ci évoquer ba paré mu mu xaw a ci xelu nit ñi. léegi ki ban ban jàngat ngeen. ki mom ngi def ci lolu yow yow sama samba samba samba xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral. je pense mhm. que courtoisie et un peu d'élégance. Mhm. Euh, certainement bu ma waxee di nga jël kàddu gi. par rapport ak euh, déclaration de patrimoine bu Bassirou Diomaye. Mhm. Euh, lépp luñ ci mën wax mooy lu Sénégalais ak àdduna rafetlu la. ci koo c'est un haut fonctionnaire servir plus de quinze ans Monsieur ko dégg ci loubal amul benn homme d'affaires amul benn entreprise li fi Macky Sall nekkoon di fagocité ak di traquer les opposants amul ci lenn lo xamné ne nañ ko ci tuumaal wala ñu mës ko ci dégg je pense que lolu moy transparence je pense que lolu moy droiture te bo xolé jomay ni mu jëlee nga xamné ki moy li auditeur bi wote sank li mu wax ku ragal yalla la loolu je pense que chance la ci nek un président de la république nit ñi ci sédé yi nga xamné dañ koy sédé sa su ne li ñuy wax moy ku ragal yalla la donc je pense très bien que président Bassirou Diomaye waxuma la ba mu nekké président de la république mais même ba mu nekké haut fonctionnaire de l'État xam na ne fonction yi nga xam ne def ko occupé yëpp lépp lum ci mës a yore dinañ ko ci laaj bu ëllëgee nan la ko yore woon. waaw ah, mais léegi léegi kooku. Mhm. xel waaw mais léegi dañuy ñëw ci li nga xamante moom mooy ah. va euh, kii may terrain boobu nga xamante ni moom. mu ko ci ci mu ko tuddee valeur vénale bi gis nga mhm. ci terrain boobu. Mhm. li tax duma ci sori. mooy président Bassirou Diomaye Faye. en tant qu'inspecteur des impôts au domaine. Mhm. ak fépp fu mu vous mhm. bu qu'on ne suuf. Mhm. def ko intéressé. ñi koy ëpp souffre ci corps bi mu nekkoon du président Bassirou Diomaye Faye mosul profito ben yon ci privilège métier wala ci privilège fonction bu muy exercer waxuma la Bassirou Diomaye mais amna ñeneen ñoo xam ne tey nekkuñu mësuñu occuper yooyu fonction. te ñu ngi leen di dégg ci affaire suuf fu nekk problème mu ndangleer bi yàggul président Bassirou Diomaye fay booba kenn xamul ne day nekk président de la république moo fi pour jël totalement ses responsabilités béy ci ak liggéey ci ak dox ci ak tax taxaw ci taxawaay bu mucc ayib yàggul dara problème bi amoon mbuur Thiès mbuur mbuur kat. mbuur kat Mbour kat. yaakaar naa boobu. Euh, euh, problème problème yi amoon mbuur pap non mais boobu ne yéen da président. boobu bi mu jëlee. Ah. dama ne dafa jël ay responsabilités pour wan la moom moo gën a bañ injustice ak kuy caxar ak kuy ak kuy caxar caxaree suuf ak koo xam ne day sàcc wala muy dox ci loo xam ne dafa lëndëm président Bassirou ay Faye déclaration de patrimoine bi mu def moom mii li muy nekk nekk opposant ak li ëpp ci ñoom liñ dul ñàkk a wax jàmm yépp nangu na comme ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk waa Benno Bokk Yaakaar ñëpp laay wax. nangul le président Bassirou Diomaye alal bi mu am niñ ko estimé lu raisonnable je pense que lolu c'est une mérite le, mais également lolu ndam la bo xamné ndamu Sénégal la et également day c'est une leçon pour tous les fonctionnaires de de de l'État surtout les inspecteurs des impôts au domaine. ñu xam ne kat occuper fonction warul tax ngay profitoo ci privilège yi di sàcc ak di luubal alalu askan wi. donc président bu jub lañu am président bu transparent lañu am président boo xam ne très sincèrement dafa engagé wu dans une droiture absolue. moom la am ok ok Basirou Basirou Basirou Basirou léegi waaw waaw dañ lay dañ lay joxaat ki même question bi. yéen lu leen di woowee sàcc par exemple yéen. Mhm, mhm. yéen li ñuy woowee sàcc. Mhm. mooy mbuurkaat. ñi nga xam ne dañ leen fa tuumaal ne dañu am ay terrain benn ñi jël littoral bi <laughs> accaparé wu ko. Ah, d'accord c'est bon attends attends pareegu ma de yaa ma mm-hmm. laaj. Mm-hmm. yaa ma laaj mm-hmm. pareegu ak également duma la euh, pratiquement ñëpp ñi nga xam ne dañu mës a occuper de haute fonction de la république. ci euh, régime mu ñu ci ëpp tey corps de contrôle yi ak audit yi ñu def euh, pressentiment yi am mooy.

lui il est tombé dans le piège xam nga fi ñëpp noonu la mel. nee nañ nee nañ mbuurkaat. Mhm. waaw ñooñu dafa am suuf sàcc gi non jomaay ka njëkk jomaay moo moo def loo xam ne. Mhm. dèjà yëpp Sénégal mun du weesu loolu. comme dèjà moom c' est le président de la république du Sénégal bu toogoon président de la république su wooyee gouverneur bu Thiès balaa mat trente secondes ñu jox ko information yi bëggoon am mbuurkaat yëpp. mais comme ñoom dañuy dox ci populisme dem ba àgg naan waaw diw am na fii 4 hectares diw am na fi 30 hectares. dama ne la ab maire su mënee may Bassirou Diomaye fay 4 hectare sanjara assemblée ak président de la République du Sénégal ab syndicat syndicat des inspecteurs des domaines mais sauf si nak sauf dama ne syndicat su mënee may Diomaye fay kër Bassirou Diomaye fay ni loolu légal na hmm. waaw wax dëgg yàlla assemblée ak président de la République du Sénégal donc c'est-à-dire xam nga soo bëggee dëgg-dëgg Pastef boo ko tuddee sa xel day dem ci diffamation Si vous Pastef sa xel day manipulation Si passif, sa xel day dem ci menace des nga ko de menace euh, rapport des comptes pouvoir Vous wax dañ dérouler leen des leen qui leen c'est pas la peine d'alerter qui ce soit faites-le dans la plus grande discrétion

comprendre ba bataille lolou mu taxaw pale waxo moy urgence bi mu fekk ci biir pour le sénégalais yi le président Macky Sall en 2012 bi mu ñëwee ci bir réew mi ci bop réew mi. Mhm. rapidement le président Macky Sall est venu et a trouvé le pays dans une situation catastrophique Macky Sall est venu fekk fi trois crises majeures. la crise énergétique. Mhm. d'abord. Mhm. Macky Sall bi ñëw le prix du baril était à 140$ dollars. mais bi plus a a xuy kamaj bi ci électricité bi. Sénégal yëpp le a courant. bi ban la. Euh, kamaj kamaj kamaj kamaj le président Macky dans un délai de trois mois. ci le carré. Le Sénégal yep, xam ni problème de délestage de si fa mhm. deuxième crise bi Macky Sall mhm. la crise financière. yéen a ngi fàttaliku bi président Ablaye Wade di di taxaw euh, maatam naan leen bis boo leen ma falaatu Macky Sall bu fi toogee six mois njëkk yi doo fayeeku loolu bi mu koy wax ci xam-xam la ko tegoon il avait la bon information parce que notre trésorerie se portait pas bien à l'époque waaye le président Macky Sall comme yàlla daf ko may moo tax may ñaax sénégal yi balaa ñuy laaj réew nañu pratiquer gouvernement maa ngi dégg Ousmane Sonko ci ñàkk ci ñàkk expérience am toujours mu naan waaw amul benn école bu ñu jàngalee gouvernement am na fi ñu koy jàngalee mooy la pratique du gouvernement nit da ngay dugg ci gouvernement xam luy gouvernement. Macky Sall loolu école des partis école des partis moo am. non non. école des partis moo am boo pratiquer gouvernement. non non à moins que à moins à moins que à moins que nga bokk ci gouvernement. ñaari façon jàng moo am. waaw à moins nga di nga dugg ci gouvernement. ñaari façon jàng moo am. li ngay jàng ci livre. Mhm. ak li nga xam ne da nga koy jàng ci dund. Mhm. donc pour nga mën a yor état dangay ngay dem pratiquer gouvernement ci nga doon xam lu gouvernement Macky loolu moo ko may bi mu ñëwee. crise crise crise financière boobu noonu même pas quatre-vingts jours daf ko réglé. non toog na ba jeexal amul ñenn ñu mus a toog fi manifesté wu di réclamer seen te pourtant Wade ne woon bu ñëwee six mois jëkk doo leen fay mais xam nga fa jaar ba lijjanti ko te pourtant lebul dama wuti ay rebond. Ah crise bi ah. troisième crise bi mooy. Mhm. les mooy les émeutes de la faim. Macky Sall bi muy ñëw. Mhm. dafa fekk xiif ci biir réew mi. prix yu cher. Ah. denrées alimentaires loolu dafay jógee. Abdoulaye Wade dafa Abdoulaye dafa yaakaaroon ne moom Sénégal Dakar Thiès Touba la. Mhm. Macky Sall fépp fu euh, dëkk sori sori. Mhm. fexe na ba ndox ak courant ñëw fa mais Macky Sall 18 jours la toog. wàññi prix yi ñëpp ka seere loolu fi la la fekk fi la ko fekk fi la ma fekk. loolu kenn da ko wedde. kon kooku. loo ko mën a waxal. bi mu ñëwee def na fekk na fi lii urgence mu daa koy solutionné mais. Ousmane Sonko dafa mel ni dafa xamul lan mooy urgence sénégalais yi. urgence sénégalais yi moom laa koy fàttali. du set setal. non loolu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw Basir ah, Basir dinañ ci ñëw. non dinañ ci ñëw dinañ ñëw yow. urgence ci ñëw dinañ ci ci ñëw may ma may ma dinañ ci ñëw Samba yow itam dafa mel ni kii question yi da nga koy daw par rapport li nga xamante ne moom moo jëm ci déclaration du patrimoine léegi kii sama sama sama sama benn question bi mooy eh, dañuy demaat eh, kii un peu en arrière à ce qui concerne eh, le bilan des des trois mois nuñ ko mën a wala wala des cent jours yi nga xamante ne moom la defoon ki ñu lay laaj comme moom bu mu ñëwee il paraît que dafa déclaré ne fekku fi dara ci xaalis ci caisse noire bi te aussi avant lolu noonu mom déclaré na peut-être euh, dépenser na lu war mat 24,3% quatre virgule yu nga xamante ne vraiment ci jàppale nit yi yoo xamante ne dañoo feebar ak yooyu noonu xaalis ak limu wax noonu nan nga koy jangalé voilà merci Ibrahima bala may ñew ci lolu dama bëggoon nga may ma en 2 minutes. ma tontu ko. ci dernière intervention bi mu def. ok euh, en fait euh, Basirou euh, li ma la bëgg xamal moy ñun wa Pastef ñeewuñu soxlawuñu expérience su expérience su ak expérience su luubal soxlawuñu loolu bu fekkee ne loolu ngeen di wooñe woowee la pratique ak expérience ñun très sincèrement soxlawuñu ko effectivement ci li nga xam ne pratiquement ñu ëpp ci ñi nekkoon ci kuréel yi ci loolu lañ leen yar ci politique moy satch ak luubal motax souvent bu ñuy wax ay waxu expérience rek man personnellement souvent dama koy jël def corrélation ak expérience ñom bi ñuy expérience ak mauvaise gestion donc lool la bëggoon leeral pour vous dire que nous, on, a absolument, on, a, absolument, on a absolument, on a absolument, on a absolument, on a absolument, on a, on a rien s'il vous plaît, s'il vous nous on a absolument, absolument rien S'il s'il vous plaît, à ma question, oui. Ah, ah. nous, nous n'avons absolument mm-hmm. rien à envier ah. de leur mauvaise expérience, de la pratique de l'État. Les ci question bi effectivement par rapport à cette question mm-hmm. euh, je pense que ci 100 jours mm-hmm. euh, président Bassirou Diakhar Diomaye euh, li sénégalais yi xaaruñu ko effectivement. comme ci parce que Réumi mi bi am crise yu bëri def ko li mais dama ne dafa xamul ci contexte ak moment bi donc yooyu yëpp bu ne dafi jaar ñu falu en trois mois ñuy jéem lu ñu mën ak lu ñu mënul suñu borom di leen également bi euh, modérer la gestion

boo ko méngalee daanaka du dara. mais nak mënoon na mënoon na leer loolu quand même. effectivement leer na. ci ay non leer na bu baax ci ay wax. Ah li ma fi fek li ma fi fek bo fi fekke par exemple 100 francs fek fi ay besoin yo xamne ne presque ça avoisine les cinq cinquante francs mën nga wax ne li ma fi fekk daanaka du dara. je pense que président Bassirou Diomaye uh-huh. limu wax uh-huh. dang koy boo boko boo boo comprendre uh-huh. dang koy jëlee ci contexte bi nga xam

daf bàyyi nañ ci xel te bu soobee yàlla suñu borom. mais da ngeen a fàtte loolu wala déglu ma. da ngeen a fàtte li ngeen doon tey rek bu fekkee ne déglu nga déclaration président Ousmane Sonko. Mhm. di nga xam ne nit ñi ñoo yàkkamti wala ñenn ñi nga xam ne ils sont animés de très mauvaise foi ñooy xalaate nenn ni parce que dañuy door a toog mesure yi nga xam ne ak programme bi nga xam ne moom la ñu jaay Sénégalais yi ba ñu voté ñu à 54 pour cent.

di ñaanal ñi nga xam ne dañ fi nekk loo xam ne bu ñu réussir mission mais li ma la bëgg xamal mhm. trois mois yi mhm. fi def mhm. ak mesure phare yiñ fi ni une volonté politique les denrées de première oh nécessité. Oh. <laughs> wàññi les denrées de première nécessité. wàññi les denrées de première nécessité wàññ. loolu c'est factuel. Amna wala amul. Mhm. les denrées de première nécessité Amna wala amul. Amna na ah, Amna am na waaw léegi léegi. les denrées de première nécessité am na wala amul xaaral sama je vous reposerai la la même question hein. ah. à savoir le bilan des 100 jours yi nga xamante ne ñoom ñoom la ñu d'après aussi c'est propos Wa. maa ngi ci loolu. Mhm. rapidement mais dama koy ah. poser war question encore. comme ban. mais mhm. dama gis. Euh, Samba toujours muy wax ni waa gouvernement Macky Sall fen fen fen <laughs> mais ma koy laaj. Mhm. est-ce que mën nga ma wax benn wax boo xam ne Ousmane Sonko mos na ka wax tam nekk dëgg quoi. Ousmane Sonko du wax lu dul dëgg. waaw wax ma benn. déggoo ma de. Ousmane Sonko du wax du également j'attire encore votre attention mhm. ce n'est pas à vous de me poser des questions <laughs> mais quoi désolé non non déggoo ma de déggoo ma de Ce n'est Basir Basir Basir ce n'est pas à vous de me poser des questions ne n'est pas à vous de me poser des questions je ah, suis très bien je suis très bien à l'aise parce que ah, ah Samba Samba Samba Samba s'il vous plaît s'il vous plaît Basirou Basirou Basirou Basirou Basirou revenons à nos donc mhm. gis nga échec bi nga xam ni yaa ko gisal sa bopp. mënu la wax benn wax boo xam ne Ousmane Sonko mus na ko wax. Ousmane Sonko nekkul président Bassirou Diomaye mooy président. Diomaye daawul wax. Sonko moo daan wax mais je vous pose la question à savoir bon Diomaye mhm. existé wul. Mhm. ñoom ñoo ne Sonko mooy Diomaye yow ay waxu mbedd. Eh, dégg naa léegi ki wootee da ci wax man waxu mbedd yooyu nekkuma ci man. Ousmane Sonko bu dajale ay xaleem nan leen mag yàlla juleendoo démb ñoow xoxam wala nangam nangam ñu tàcc man yooyu nekkuma ci dama ne la laaj naa ko question bi il n'a pas la réponse ça veut dire ko loolu war na la wan na la ne la attention Ousmane Sonko musulaa wax lenn loo xam ne yow teg nga ci sa bët mën naa laa jox exemple taxaw na la fii ni la yor naa euh, rapport bu épinglé Mame Mbaye Niang taxawaat ni la damaa jiw woon rapport IGF baag xam nga dama nga fàtte euh, jam ñaay joo xam nga nangam nangam donc. ñaar sama question bi ñëwaat bëri na. Basir Basir ñaar ci sama question loolu. Euh, nga Diomaye encore est tombé dans le piège. bilan 100 jours. existé wul da ko importé ci biir réew mi. bilan dafa teel daal rawatina non koo xam ni mosoo nekk dara. muso nek sax chef de service. ah déet man nan non muso nek chef de service. muso nek chef de section. pourquoi ngay nangu ñu lay dugal ci piège du 100 jours. motax tax la dafa tel dal dafa tel dal dafa tel ki mom man jomay ma ngi xaar ci mom ay ay résultats fi ak déwén. normalement c'est très normal normalement parce que bu doon Amadou Ba mo fallu ngour du caaxaan waxnako bu doon Idrissa Seck mo fallu hmm, bu doon Khalifa Sall mo fallu ngour du caaxaan bu doon mohammed bun Abdallah Dionne mo fallu bu doon Boubacar Camara mo fallu d'accord na 100 jours nga xaar ci ñom bilan mais ñi ah no bu bo mosuñoo pratiquer gouvernement donc nan xaar fii ak déwén ñu tek ay djégo yu bees waye nak ñun liñu man ñun duñu opposé wu comme comme ñu daan opposé woo saga xaste fen jaxase tal cocktail molotov jaxase kër dina ñu yoy nekkuñu ñun dañuy joxe ay proposition la preuve ma ngi ni la Ousmane Sonko su fekkee xamul urgence yi koy xaar hmm. maa ngi ci jox ben li ci jiitu moy affaire euh, loi bi sénégalais yow sa wàllu bopp yow xam nga loolu. xam nga ni loyer. xaaral loyer. préoccupation de la population sénégalaise la. loolu mënu xaar. mais ñoom jël nañ cee mesure jël nañ jël. xanaa mu jox solution bi. ma ne wàññi nañ ceeb bi ceeb kilo bi war nañ leen ci francs. loyer bi laa la wax loyer ah, bi. ok. waay bi nag waay bi nag weer ak morom ji. Ah. dafay jege. mais loolu facteur bu. bu am solo la. bu fa bu am solo la te ñoom. mais mais mais yéen it yéen it daa mel ni daa mel ni kii jël ngeen ci ay matuwaay ay ba léegi. def nañ ci la la la. ah déet ah déet ah nga dèjà. yéen it da ngeen ci échec dèjà hmm. non non non non non. da ngeen ci échec dèjà. Hmm. mais mais da ngeen ci échec woon. moo fi nekk ak Sonko <laughs> moom lañ bëgg a jox solution dama ne ko. Uh-huh. Hmm, pour mu saafara jafe-jafe lu waay. Uh-huh. na fexé ba offre bi ëpp foofu demande bi. offre bi ëpp demande bi. su offre bi ëpp demande bi manam président Macky Sall commencé woon lo am solo muy leen wax. 100000 logements yi Ousmane Sonko na fexé ba 100000 logements yooyu nonu mu renforcer ko ci commune yi surtout na yi nga xamni mo ëpp ay euh, locataires moy ay Grand Yoff fi ñu nek ay Parcelles ay Guédiawaye ay Niary Tally. Médina Colban fofu na fexe ba lépp lu mu fa mën a jënd ci ay cité lu mu fa mën a tabax ci ay logement mu def ko fa ba noppi avec tout les commodités. mais foofu daa amatul espace non non non bu ko neexee mu jënd état mën na jënd tabax parce que sénégalais yi xaalis gu am surtout fonctionnaires yi eh, eh, jeexal ko ci. bailleurs yi euh, euh, bailleurs yi toog. loolu da ko war a saafara nu mu gën a gaawee su fekkee amul xaalis fu mu ko jëlee moo fi waxoon ni bés bu toogee la problème fiscalité yi. mën na saafara jafe-jafe euh, askan bi. ah waaw ñoo ko waxoon jëru sax muy leb. waaw ma koy fàttali benn. Mm-hmm, mm-hmm. benn niche. benn niche fiscale. mooy leen wax impôt foncier. mais yow comme yow di nga. impôt foncier. Ah. mooy kër yi dana war di fay ay impôt te kenn defu ko ci. cent kër yoo ci jël benn sept moo ci benn sept pour cent moo ciy fay Ousmane Sonko ma ngi koy fàttali loolu su fekkee yaa ngi koy dégg na nga ko fàttali loolu na fexe ba kër yi.

kooku góor la woon jomaay su fekkoon amul xaalis avant sal mois boobu euh, kañ la falu mars avant mars di dee day tukki day wuti xaalis bu mu fay fonctionnaire yi jomaay génnul mars génnul avril xam nga tax génnul amul problème mu trésorerie xaalis bu doy la ko fi président Macky Sall bàyyi la preuve banque mondiale ci boppam ak FMI ñoo ne Sénégal si xaalis bu bari la toog soxlawul sax muy lépp moy bi ñu demee sen seen bi. moy bu gay bañ. donc man motax may laaj pourquoi ñom ñi demee ñi dem di lebi seen. Euh, ah dafa nit aussi dana am ba pare. banque mondiale mhm. effet bi ñoo ne. seen leb boobu jëru ko parce que Sénégal dañu dañu liquidité aussi doy. est-ce que est-ce que nekul aussi dañu atteindre sen ki aussi sen courbe aussi seen lan. nakam sen limite. sen limite moy par exemple. moy ci dette bi. am na looy lebe am na looy lebe bu mu bëri aussi soo ñëwee itam aussi non non mhm. FMI ak banque mondiale mhm. ñoo gën a xam Ousmane Sonko ak Diomaye situation économique gu Sénégal ñoom ñoo ne mhm. ñoo taxaw jàkkaarloo Sénégal yëpp di leen dégg ñu ne Sénégal mi ngi ci liquidité bu dëgër soxlawul muy leb eurobond donc ñoom seen leb boobu noonu xamu ci yan critère la nga teg ba doon def ko donc loolu day war ni le président Macky Sall gàcce nga la te pourtant ah. xam nga loolu lu ci jar a jàngat Macky Sall li xamal ni gaynde la mais Macky Sall euh, deuxième mandat bi yëpp daf ko traversé deuxième mandat bi yëpp daf ko traversé ci ay ci ay événements yoo xam ni Bassirou Bassirou bu dul woon bu dul woon xoola xoola Macky Sall bu dul woon jàmbaar dëgg dëgg tey économie Sénégal suuxee na parce que Macky Sall Sénégalais dañuy fàtte dafa fàllu 2019 jël vacances dem dem Biarritz ànd ak jabaram ñëw prip problème bi bi si ñëw <laughs> pétrole bi <laughs> ñu ciy coow quatre cent mille quatre cent mille affaire bi jeex Merci ñuy wax rek. Mhm. Covid ñëwaat. merci beaucoup non non Covid ñëw. fi ñëwaat euh, euh, système de vie. Mhm. Euh, intimement et collectivement. Mhm. ñu nekk ci di wax.

là mais vraiment on est malheureusement dimanche on est attrapé par le temps donc pour ñuy def rek j'aurais c'est seen euh, kii kaddu gu mujj kon euh, kii ni Samba Dione lan merci les may gâteau de moi 100 euh, mille logements yi nga xam président bico initié mom ak militant alimentaire yi nga xamné mom la am ak ni ñu lañ ko buy wax tamit. ah bon ay waxu foncier. ak di wax ani ak. da la jox citation di wax également ni nga xam non lañu yoré won yore réew mi ci walum impôt je pense que moom mii ak Macky Sall loolu def dañ ko xamutoon ba bi wacce lañ ko doora xam nous nous avons absolument aucune leçon à recevoir du régime sortant. ay nous sommes une génération décomplexée et d'idées. Hein? yalla may nañu yalla may nañu li ñuy def xam nañu ko am nañu programme. E am nañu vision fi ñu bëgg jëme Sénégal xam nañu ko bu baax. mais man Samba li ma jaaxal PSE mooy dox ma légui encore une fois Ibrahima. Mhm. li may lancer appel. mais état continuité li may mhm. lancer e appel. en mhm. <laughs> fait bëgguma dugg ci yenn tontu yi. merci beaucoup moo li may lancer appel sénégalais yi moy nañu gëna patient. Le président Bassirou Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko. Nous avons mettre le Sénégal. sur le très bon chemin. avec vraiment politique yu am également remercier le département de Bambey et la commune de bundondol. di remercier tous les responsables politiques et tous ceux qui vraiment fait la effectivement lancer un appel au ministère du transport. mu bàyyee ñu xel bu baax ci tëli boobu nga xamante ne régime bi fi jaar ba bañu seen premier mandat bañ fa jaaree la ñu waxoon ne duñ dinañ ko def. ndangal ma ba bés ndangal ma dondol ndangal fii sel ci durant deux ans yi ñu fi def yëpp saa su ne dañuy bàyyi ba élection yi jege si ñu indil ñu raara ak oto yu kenn xamul di ndax askan wi moo taxit élection yi ñu jóge nous perdre dans toutes les 12 communes du département Sénégal jox réew mi et à 54,58%. je pense que le moins confiance encore une fois yàlla na leen yàlla may jàmm yal na leen yàlla jàppale ba yéene bi ñu am ci Sénégal ñu matale ko merci beaucoup merci beaucoup Basirou loolu lan nga tegal waaw maa leen nuyu Samb euh, Ibrahima Ibrahima di mhm. nuyu Samb mi nga euh, sama ko débatteur di mhm. nuyu Samb aussi mhm. le technicien technicien di beral am nuyo la madame la directrice Nouma di nuyu aussi sama waa commune waa Daaru Musti yëpp waaye di di nuyu sama waa parti waa APR. Mhm. Euh, rawatina le président Abdoulaye Daouda jàll bi nga xam ni tey moo nekk ci kaw. Mhm. di ci kaw euh, di nuyu waa Sénégal yëpp yu ñu. Amadou Ba moo ne ci kaw. non waaw ah, d'accord bu la neexee yow yow. yéen daal yéen waa yéen waa benn ah. bokk yaakaar waa APR. moom ah. moom laaj naa ko léegi ci man ci man poste wala bokk poste bu Diomaye wala poste bu Sonko. benn la mu ne ma poste bu Diomaye laa bokk. Diomaye mooy Sonko Sonko mooy jooñ wala lu ñu gëm la. mais Amadou Ba du du du Abdoulaye Daouda Diallo. dama ni dama ni dama ni. maa ngi nuyu waa APR Sonko mooy Diomaye. waa APR yëpp. di nuyu abdoulay Daouda jalla bi nga xamne mo nek ci kaw. Mhm. ak ñi nek ci ginaawam yépp ci suuf la nekk di beral am nuyoo son excellence le président Macky Sall. Mhm. donc di nuyu ñi ñi doon diglu yépp. di wax aussi fi doon waxee. Mhm. Euh, digënté ndol-ndol Fesel foofu yépp. Euh, dafa jaadu mais Baba Garage. ak euh, Gawane. ba ba ngay dem euh mi. fofu yépp président Macky Sall dako ko goudronné Euh, euh, kii waay comment dire. Euh, defoon na ko ah. latérite. la mhm. loolu mooy raaran. Mhm. naka kii ñëw def goudronné. kii Diomaye waa ji ki mu tudd El Malick Ndiaye. El Malick. El Malick Ndiaye waaw waaw wax nga dëgg parce que foofu. transport.

nekk APR coordonnateur AFAD euh, et vraiment Darou Moussi vraiment ñi ndokkeel aussi ñi nga xamante ne ñu bàyyi woon xel ak technicien bi nga xamante ne moo si liggéey bi boo kaddu yi mën a jote fu ne di am mbégte contentement auditeurs yi fi woote ak ñi wootewul foofu vraiment fépp waaye nekkoon béy ñu ko rek ñoom lay di la gërëm di sant di gën aussi ki gi ak aussi la directrice ak personnel bi nga xamante ne vraiment moom lañ fi moom lañ fi fekk